ci panta ban maqaama bi xëy na daal da nga ko ci bante mooy al maqaamatu raqaba hmm. li ko def mooy dafa am benn leetar bu xam ne hmm. euh, ni mu koy doxalee daal hmm. mooy leetar bi boo koy jàng ñaari yu tegaloo benn bi day am tomb benn bi du am tomb noonu lay demee ba benn bi day am tomb benn bi du am tomb gis nga baax a baax maqaama bu neex a neex la bu fekkee xool nga sara bi du am yu fi jàng dana yu fi jàngale yu xam ne yu am solo la taala mm. ñu de ko jëfandikoo ci jamonoy xat-xat mu nekk xet la ko kaay yu wér a wér a wér mm. eh, suñ mag ñi fonk ko torop mm. comme ni nga gënee ñu fonkee ñaanu rufaa loolu am na ci ci ci sëriif yi ci maqaama bi am na ci sëriif yi salaatul yi yaakaar naa moom la am na ci sëriif yi ci maqaama bi mm-hmm. axbara wala hakka ah haddasa waxtaan na alxaarisu xaaris ibnu hammaam xaaris mooy waxtaan qaal mu ne xalaltu wàccoon naa soo qayil ahwaas ñaari jahi ahwaas ahwaas dëkk la seen faaba dëkk bi nag dafa benn dex gu nekk ci digg dëkk bi su ko defee marché gi marché bi fiq dex gi lii faree fii lii faree fii hmm. ñaan soo xëyin ahwaas dëkk la bu xawee dex gi dafa jaar ci digg dëkk bi dëkk bu mag a mag la yaakaar naa ba léegi hmm. léegi nag dex gi nag ma bi séq ko hmm. boo demee ca marché ba toll mu ne dama faa dem yaakaar naa ba léegi dëkk bu mag a mag la de foog naa ko de selu mu baax wax ah naa ko seetal la laa bi san ko dayal ñàkk dama dem alahwaas mm-hmm. te booba ni ma ñàkkee weesu naa ko dara wu ma mm-hmm. fa ma sax fiyaa ci ahwaas mm-hmm. ee eh, muddatan ab diir xaaris mu ne ma sax fa ab diir o kaabit dina jàng maa ngi jàng ko ante shiddatan tattan bu ma yaakaaree tey mu tane rek e mu gën a doy waar su ma yaakaaree lee mu yoxoom rek e mu gën a teeng su ma yaakaaree ne lee mu yomb rek mu gën jafe rek ukaabidu mada falabistu ma sax fiyaa ci ala waas mm-hmm. e eh, mudatan ab diir ukaabidu may jànkuwante siddatan tar wowuta mm-hmm. ji may màng mm-hmm. ay yaaman ay fan yu daway ñuul xam ne daal diir moom fa nekk daal e nekk bu métti la ilaa am raaytu ba ma gis tamadil muqaami wéyeg sax min hawaadil intiqaam mu bokk ci sababi bugal wala way jàggati bugal mu bokk ci way jàggate yi bugal ba ma gis ne lii daal mm-hmm. dëkk bi daal ni mel ci ma mm-hmm. toog ci seeti huma fenn fenn mm-hmm. loolu ku ko def ci bara lu la fa fekk yaa ko teg sa bopp dégg nga ah wa ida raayta rizqa assa bi baldatin farhal fa abdullahi wasiatu lfada tulan wa yadan sharquha walmaghribu noonu la demee nit mel na mu war a mel moom la war a def su ko defee nag xamut war a dëkk fu mu mën a dëkk moo am a dëkk barab moom xamut mën a dëkk barab rek moo am war a dëkk barab foofu amul mën a dëkk barab rek war a mel ni nga war a mel ni nga war a mel am noo war a mel ak noo war da mel loolu moo am a dëkk barab moom xamut mën a dëkk barab moo loolu jar nañ xam jar nañ xam jar nañ gëm nag. Mhm. waaw jar nañ gëm nag jar nañ xam jar nañ gëm. Mhm. Mhm. ilaa raaytu ba ma gis tamaadi al muqaam ba yëg sax. min hawaadis intiqaam mu bokk ci way jàggati bugari. ma ne fii toog bi mm-hmm. xeet la ci lor sama bopp mm-hmm. ndax it nag barab boo fa xaajoo ak gàcce mm-hmm. loo fay tànn dara ci gàcce rek nga fi ne kon loo ciy tànn dara lay sa taxarrubu an tasku nawaa safarin du tumaranke mooy sori fa nga juddoo du lool wa innama zaaka faqadul aysi fil watani tumaranke lim do mooy dofi li nga war a dootala loolu mooy tumaranke Mm-hmm. waaye tumaraanke dun mooy sori fa nga juddoo mm-hmm. laysa taxarrubu mm-hmm. an taskuna waa safari tumaraanke dun mooy sori fa nga juddoo wa innama daaka faqadul issi fil watani indi xat na waaye indi ma bindi wan ma sokay bàyyi ma bindi ko bii rek baax na amu leen kon amu leen bi fii laa koy bind sama téere bi ko soxla waaw innama watani buñ paree ku ko bëgg a mu ngi maa ngi ko bind sama kay bi tey sama kawan ma gis ne fii daal pour man ma refi toogati kooku daal xeet la ci manqué daal faramatuha ma xool dëkk ba bi aynil xaali ci bëtam aji bañ man nag booba laa ca doyal sëkk mhm. suur ko këll këll këll daal mhm. parce ëtt ëtt daal comme tàggale woon la gàcce daal mhm. jarul yow ngay xalaat tàggale ko ñax ak baara ko gent dem loolu di am parce que woon la gàcce daal jarul yow nga de ko tàggale ak ñax ak baara bàyyi ko fa ñax mi ne fa waaw man daal boolaa ne daal gental naa ko tas naa sama wàlla tey tey waaw <laughs> dégg nga mm-hmm. oh, ah wa innama daka faqdun haysu fil watani mm-hmm. wa faraxtuha ma tàggaloog moom mu faraxata tolali kem gent albali bu daa ji mm-hmm. ma jox ko ne fii àddina si moom laa gën a bañ bëggatuma fee del si comme gent laa ko def bi laa yàlla bu ma fii dikkati mukk loolu laay wax <laughs> lu ci teg fasaantu man la xas mm-hmm. xan wasaliha wali tepp teppam sax mm-hmm. kem la ma fay xamee mu ni lu ne dara la xaajale maag tumaranke loolu mm-hmm. jarul toog fi toog ci barab dafa am looy dëgg di ko def waaw toog ci barab dafa am looy dëgg di ko def waaw lu dul dara ñii la ci koñe dara ci gàllankoor kooku dafa am borom waaw loolu mu ne xaritu góor rek war na tàggale mag ak sa ko Hmm. su góor nag ba tàggale mag sago sago ko waawa kamisat isaar de hmm. aji wax ci ndiram lay hmm. rakidan de aji gaaw ilal miyaahi jëm ci ndox yi alxisaar yi dafay bëri man daal booba laa ko ne gannaaw fii daal te man man daal su ma fi nekkati booba laa bàyyi ko ba ma min ha ci soo xëyit awaas marhala tey ni kem ñaari wa ba waxtu te ma suree ko. sura layla tey ne kem rañaanam ñaari guddi. mu ne may dem ba suree dëkk bi ab pare lu tolloog doxu ñaari fan. bi loolu amee nag taraat feeñ na. lii ñaal ma xaymatun xayma. madrobatun bari bu ñu samp. bi ma suree dëkk bi loolu nag. ma seen benn bergenn bu ñu samp. wa naarun ak sabara. mas booba doon gëre bu taal mm-hmm. masin safara wuy tàkk mm-hmm. fa xultu ma ne aati yi ma danaa leen ñoom ñaar mm-hmm. damaa ci bergend boobu ak safara woowu ah, laali ngir man xañ man al qawma man di sadan ci mar awajidu wala ma fekk ala naari ci safara si ku danaa ji man naa am ma fekk ku ma defal dara su ko wanee na ko ibnu sabil la mm. wala boog ku teg ci yoon woo xam ne mm. danaa ci mën a xettale mm. ibnu sabil mooy man yejtaasu bi kamaram mooy ki nga xam ne daf dafi jaar di ko teral ko teral ko alquran moo ko santaane bokk na ci teral ko dimbale ko ci yóbbal bokk na ci teral ko kalaatal ko ci demin wu a yomb ci fa mu jëm gannaaw xam nga foofa Mm-hmm. bokk na ci teral ko mm-hmm. wan ko yoon bu gën a gàtt bu gën a jub mm-hmm. gannaaw xam nga fa mu jëm yooyu yëpp ci dimbali ibnu sabil la Qurtubi wax na ko waabudullaha wala tusriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa masakini wal jari fil qurbi wal junub wa sahibi bil jambi wa ibni sabil ba mu koy leeral nan lañ ko war a dimbalee yooyu boole na ko ci dégg nga. Mm-hmm. ma ne xëy na ma fekk fi ku xam ibnu sabil. fala mm-hmm. man ba ma xàggee ila zillil xaymati jëm ci keru bergende bi. Mm-hmm. bi ma dikkee ci keru bergende bi. E, raaytu gis naa xilmatan ay jaam ay gone rooqatan ñu de way yéeme. ma gis ay xale yoo xam ne fa tabarakallah. ñu forob lañ ñu set lañu. E, wasaaratan ak melo wu mar mu xatan wala wu ñu yee wala wu ñu xool. Mm-hmm. ah ma gis bii tam melokaan woo xam ne daal melokaanu tiranga la. Mm-hmm. E, bu neex a xool la daal. Mm-hmm. pour man na ma ko gisee. wase alu ji tegu. waaw wasee xam ak a góor. ma gis itam genn góor. boo xam ne alayhi nekk na ci moom bisatun ay kodday. sa niyatu ni dooy rafet. ah ma gis benn góor boo xam ne kodday yu rafet yu garant la sol. wala day it a nekk na fa moom. Mm-hmm. fakihatun fooy teef janiyatun bare bu ñu kotti. Mm-hmm. mu ngi ay meññetam ay furim yu neex ay furim yu neex de lekk. Mm-hmm. fa xayituhoo mën na yu ko. ndax it nag boo demee ba ci barabu nit. fokk si nga nayoo. summa taxa maytuhoo topp ma sori ko ma aaru ko. bi ma ko nayoo fekk gi ma ko fekk may muy lekk. ma jëfandikoo teggiin sori. fa dahi ka mu ree la jëm ci man mm-hmm. waxtana mu rafetal arab da delloo àlla yee ci mm-hmm. waaye góor gi nag def yëfi gërëm yëfi mm-hmm. fay ma fay bu rafet mm-hmm. dal ma reexal may ma cël may toro wa qaala mu ne ma e eh, ala tajlisu xanaa doo jékki ilaa man jëm ci koo xam ne torooku dana héeme fakiatoo fay teefam wata suuku te dana soppaloo fakiatoo mbëran teef mu ne ah fii de waaye deful kan dara ah soo ñëwee dañ la jox lu neex nga lekk dañ la waxtaanal itam. Mm-hmm. ba pare bàyyi ko namm bi. Mm-hmm. ah doo toog fii deful gan dara. Mm-hmm. mu ne loolu la wax. Ah, mu ne loolu la wax. ala tey li du xanaa doo jikki ila man jëm ci koo xam ne. te rooku dana yéeme pàcc atoo fay teefam. si boo fi toogee lu la neex lañ lay jox nga def fi lekk. wata suuku te dana soppaloo. ko nga namm bi. ah doo toog fii ah fa jalastu ma jékki. ma itam ma toog parce que toogal itam nag. nga toog rek. lextinam bi maa ngir maa ngi li li lextinam muhadarati ngir màng toogaaleeg moom mm-hmm. gannaaw te suuq mu bakaatu mm-hmm. te man waxtaan ak borom xam-xam yi ñor na ma mm-hmm. ma ne naa toog ndax ma déggee fi ay waxtaani xam-xam laa tooguma sax nag littihaami maa ngir lekk ngir lekk li nga xam ne bi hadratihi nekk na ci barabam duut kat ndabam la rek moo fa tax a toog daa feru tibb lekk rek taxul may dox ku may jox lekk rek taxul may wëreelu déedéet man damaa wëreelu defet fu ma daanee doole samay mbiroo man mën koo doxal mm-hmm. waaye nag nekk ci nit ma yore rek mm-hmm. loolu taxul may wëreelu mm-hmm. loolu moo tax dundabam la moo ko tax a toog du affaire lekkam la parce que xalaatuma ne man dama toog rek ñii ma yore xalaatuma loolu waaw jërë bu baax la fa ñii na safara ba mu feeñalee nag xan bi yi ci xam-xamam yi ba mu waxee xam-xam nag wakkasara te mu si ñaan yaa bi ci bañam wax bare arastu booba laa xam ne ànd na ko ne ko Abu Zayd booba laa xam ne sama waajil Abu Zayd bi xusni mulahi ci rafet ak waxam yu xorom wa xubi xalahi ak ñaaw ak bayam bañam yu saara ba ñi dañoo xem xonk cur waaye dafa am fasaatu lisaani ba mu waxee bare nag ma xam ñu ko ci kàddu ga ak cereeja nag moom bi mm-hmm. mu ne mu lahi ci rafet ak waxam yu xorom mm-hmm. wa qubi qalahi ak ak xem ak bañal fa tamarat naa ñi xamme hante yi na isin ca boobale mm-hmm. mu ne ñi xamme hante waa fa dal de peeg bi ci man farataani ñaari mbég taata isin ci waxtu woowale mu ne maam ñaari kontante walam adri xaw daal bi ay maa ci kan ci ñoom ñaar ana man axfa la gën a bëree farahan ci mbégte waaw faate ci la laa gën a matalee maraxal ci siigare mm. ñaari mbir la yoo xam ne xama daal mm. lu ma ci gën a kontaan loo mm. tun mu ni doog abu amrin ibnul ala kenn la ci alqura u sama maanaam alquran juróom-ñaari njànginam yi xam na ci njàngin boo xam ne ñu ko haskan ci abu amrin ibnul ala moom ak hajjaj ibn yusuf ñoo jamono hante woon xajaaj mm-hmm. buur la woon mm-hmm. bu ñeme woon rey nit mm-hmm. ñeme woon sonnal nit sonnal nit ñi toro yàlla ko ci alquran nag mu daan ko liggéeyal lool nag bari na loo fee gis ci alquran moom la Mm-hmm. ay rubon yi ngay gis ak mm-hmm. sumun yi ngay gis ak hisib mm-hmm. yi ngay gis ak yëpp ci jamonoom la ay amu doon ci mbindi sahaaba yi léeg-léeg nga dañu alquran maska sàngam ci la xaaje ha sadda sàngam ci la xaaje ha arafu sàngam ci la xaaje yëpp ci jamonoom la parce que moo daan sonal nit ñi da loo xaraf yi da leen compte loo maska yi dégg nga dafa dajeeg abu amrin ibnul ala ne mu ne ko illa man ixtarafa xarfatan bi yadihi lay jàng mm-hmm. mu ne ko xarfatan bi fadil xëyni mu ne ko waaw loolu lay jàng illa man ixtarafa xarfatan bi yadihi mu mm-hmm. ne ko ndax dafa am foo dajee moom arab mm-hmm. abu amri na ko déere mais noonu lañ ma ko jàngale mu ne ko quran arabiya la Mm-hmm. Qur'an arabiyan la téere bi téere waxi arab la mm-hmm. ku ci wax loo xam ne amul ci waxi arab dama koy diggaaleeg yow mm-hmm. illa man iftarafa xarfatan bi ngay jàng defataaxa yin bi comme moom danga ma wax foo teg jox ko dele na ko fii heure sàngam laa la àppal bi sàngam bu jotee te andi foofu dana la jàpp ma rey la parce que téere yàlla bi du lu ñuy foye abu amrin ibnu ala di ko gëstu mm-hmm. man de fexe ba gis li ko xalaaj di li ko eh, xajaaj laa de wax dama jum mm-hmm. man de fexe ba gis mm-hmm. man de fexe ba gis ko ba bis bi nga xam ne moom la ko xajaaj joxoon na ko buñ ci àggee soo ko andiwu la jàpp ma rey la bis boobu jot mu xëy jàpp ne moom kay tey kuy la muy dox ba ca kanam dégg benn arabi yu di wëy ne mm-hmm. mm-hmm. rubbama tajzau nufuusu min al amri mm-hmm. lahu farjatun ka hallil inqaali rubbama tajzau nufuusu min al amri lahu farjatun ka hallil inqaali rubbama tajzau léeg-léeg jàq an nufuusu bakkan yi min al amri ngir mbir te lahoo ñaal na mbir ma farjatun yër-yër ka hallil inqaali mel ni fecc xew-xew mm-hmm. ni léeg-léeg dara de ko jaaxal mm-hmm. fekk dara ja yàlla rek lel na ko ko dara du ko ci mel mm-hmm. rubbama tajzau nufuusu min al amri lahu farjatun ka hallil iqaali bi arab yi waxee loolu mu ko waaw yow li ngay wax nii lu la ko tax di wax mu ne ko sonnalekat bi hajjaaj moom lañ fi tàggee dee na mu ko gari mu ko waaw mu ne ko waxaatal wéyu ma dégg arabi yu bi ne rubbama tajtao nufuusu al amri lahu farjatun kahallin heqaali mm-hmm. mu ne ko farjatun wala furjatun mu ne ko bépp lisim bu dikk ci waxi arab natto foolatun mm-hmm. man na foolatun mm-hmm. mu xam ne illa man ixtarafa xarfatan bi yeddi bi mu doon jàng arabiya fusaa la mu ne man xama xam gi ma xam bat bi ak dee ak a jaaj gi lu ma ci mu ne man xam-xam ma am ak dee ak jaaj bi lu ma ci dàqal daal loolu waaye mu ne waaye waaye muy itam daal ma daal lu ma dàqal. loolu bu baax a baax. bindkat yi li muy wax ne ay xalaat la yoo xam damay dëgg ci baral ko rek. loolu la wax. mu ne waxaat fa dal di peeg bi ci man safaraataani ñaari mbégte. Hmm. Eh, wala ma adré xaw fii maa ci kan ci ñoom ñaar ana man appa la gën a bégee mm-hmm. eh, la gën a bëree mm-hmm. ci mbégu aw faate ci la gën a matale mm-hmm. maraxan ci siigaréw dajee gi ma dajeeg moom benn la aussi fekk gi ma ko fekk ci xéwal te bàyyi woon ko ci coon anax bi fari ci feeñam min du junnati afari yi tukkee ci la dem tukkim am walla bi xisbiri xaali ci naat ak ay laxasam band im xaali yi ci gannaaw beekooram wataaxa dal di sopp mm-hmm. nafsi sama bakkan mm-hmm. ilaa afuda jëm ci ba ma dajaat mm-hmm. xat ma sirri kaste bu mbóotam waabtu na ak ma xam daan yette yusri yi sababu koomam xam nga nit ak la mu bëgg may nag kontaan naa ci ne ko fekkee waaye ana nag fan la jaar nag ba am lii nag loolu la bëgg min ayna iyaabu léegi dama gis abu saydin ma gis ko muy abu saydin ma kontaan xaw ma daal dajee gi ma dajee moom ci laa gën a kontaane waaye walla boog teraanga ji ma ko fekkee daal ci laa gën a kontaane fa ma ne ko min ayna fan la tukkee iyaabu ki sag wëññeeku wa ilaa ayna fan la jëm insiyaabu kisag yooru ba mm-hmm. ma jëlan imtala la feete xiyaabu ka say wëli say defu ka yire mm-hmm. ma ko xam naa laaj moom ay laaj lay da yu teg yuñ forcé xante mm-hmm. ana fan nga baxoo ak fooy ak li nga xam ne nii foo ko jëlee loolu min ayna fan la tukkee iyaabu kasag wëññeeku ana foo baxoo way laa ay na fan la jëm mm-hmm. insiyaabu ka sag yooru mm-hmm. ana fan nga jëm mm-hmm. wa bi ma ci lan imtala la feesee xiyaabu ka say defu kay yére li nga am foo ko jële loolu la ko wax fa qaala mu ne ma amal maqdamu daal dikkuwaay bi day fa min tuusa tukkee na tuus maa ngi ko ci dëkk buñ naan tuus wa amal maqsadu jubluwaay bi mm-hmm. fay la suusi jëm na fuñ naan suus mm-hmm. maa ngi jëm fuñ naan suus mm-hmm. wa amal jidatu daal koom gi allati gi nga xam ne asabtuha jot naa ko fa mi risalatin tukki woon na cib leetar ki xadabtaha bub juri naa ko bu dee koom gi nag benn leetar boo mos a bind ci laa ko xamee fasaaltuhu ma laaj ko an yabrusa nii ba mu lalalat ma hmm. dixlatahoo biir mbiram hmm. wayasru da mu toflante hmm. mooy mu fite xale ci man risaala tawoo leetaram ma ne ko waaw léegi daal kem li ma tontu ci baar yu gàtt yi moom laa bëgg nga fasaleel ma ko ndax gëjee bi yàgg na ma xam li nga dund ak itam leetar bi nga jëlee gi bëgg naa ko xam fasaal tuhoo ma laaj ko ay yafrusa nii ba mu àndaaleeg man mm-hmm. ba mu lalalat ma mm-hmm. ba mu lalalat ma mm-hmm. dex la tawoo baatinu mbiram wayas roda te mu toflante mooy mu pite xale ye ci ma risaala tawoo leetaram fa qaala mu ne ma doona maraame ke hiis na sa càkkutéef xarbul basuusi xare basuus aw tasabani ndara nga ànd ak man ila suusi basuus mu ne ma man ci yoon nekk mm-hmm. fi ne taluma ma yi mm-hmm. li nga bëgg mm-hmm. soo ci dogoo la man a nekkee ñu ànd ba soos gëma dëkk gëma jëm su ko dur nag yaakaar naa rek la mbiru xare ba soos moo gën a yomb rek la li nga bëgg ba soos xeex la bu xam ne xeex nañ ko ñeent fukki at mu tëra fay xam nga naqari naa rek la lool doona maraami ka xiir na sa jàkkuteef xarbul ba suuf si xare ba suuf mm-hmm. aw tas xabani dara nga ànd ak man mm-hmm. ila suuf si jëm suuf mm-hmm. waaye ihtaj ila man siita te kon asirahu soxla moom moo man borom kon ko soxlaal fokk si nga ne ci loxom xaala xaaris nee na xaaris nee na fa sahabtuhoo ma ànd ak abu seyri ilay ha jëm suuf ma ne kon bisim lay lay dem xaaral ci noteel. Mm-hmm. fekk man xamu fu de suuf. Mm-hmm. xamu fa benn soxla itam. Mm-hmm. waaye gannaaw moom laa soxla. te nee na foofa lay sottee. bokk si ma ne ci loxo. ñu ànd ba suuf. waa kaftu masa alayhi ci abu seydi. bihaa ci suuf. saran weer. ñi dem suuf. topp weeru lëmm. bu xam ne benn fan maa ngi ci wuti. boo moom yaa ngi mu may sungalin. kaasaati taxlili ay kaas yan laal mm-hmm. way juru ni te mu dema diriloo mm-hmm. ayen na ta tamili googi yaakaar loo mm-hmm. bi mu ne ko xanaa mu wax loo xam ne waxi yaakaar loola waaye na waxu du wax du wax tey lay bi mu ne xanaa mu ne ah déet moom dootu yàgg dootu yàgg façon yooyu waxuma lu ma xamee li ma bëgg waaye waxuma lu ma xamee li ma bëgg du ma ko defal tontu la am yaakaar daal. te mm-hmm. du ànd ak bisimilah loolu laay doon ah. Mm-hmm. tey Amar moo yàkkam daal dootu yàgg. Mm-hmm. incha allah. moo koy muñal rek bañ a yàkkam. loolu lay wax. woo tam mi jur woo te moom. yaa lu ni mu may sungali. kaasaati taalili kaas ngeen laal. wuy juru ni te mu may diriloo. ayen na te te miili googi yaakaar loo. su ma ko laajee ah dana wax ne ah tey de mu xam naa nangam mooy te mu mën a am. Mm-hmm. waaye de incha allah moom. Mm-hmm. li ma la wax moom daa ko def. Mm-hmm. hatta isa harija baqat. sabri sama dën. waxee la denoteer. sabri sama muñ. weeru lëmm ma téye na ma ko. ci benn leetar bu ma koy laaj. ak lu ma bëgg mu waxtaan ma ko ci mbiram. ma dem a dem ba sës ma itam. ba loolu amee nag. qultu wax naa la ñaal ko dama ne ko. innahu naka luy mbir lam yabqa desut lakka ñaal la hellatun benn hella wala lii man desut ñaal ma ta hellatun sungale ko waay fil sax léegi daal mbir mi su fekkee man nga ma koy waxal yëg ma waxoon ne te mooy ànd dikk ba soos ñëw naa ba soos su fekkee coonom bi la wax muñal naa la weeru lëmm su mm-hmm. ne luy teg nga waxal ma ko mm-hmm. amul mm-hmm. man nag fi mu ne gannaaw duñ ma ko waxal duñ ma ko man da waxal dowaatu ma ko fee toog wala lii ñaaluma tànge la tan sungure ko ay fil maqaami ci sax wa fii xadin ci ëllëg daal asjuru laa day jaaj ji xoraabat bay ni suba si tàggaloo kon nag bu subaa daal ah ba ma gisul nga xam ne na waaralu malaxa hmm. an ka waliif la hmm. bi xuffay hunayni ñaari sangi hunaynu hmm. xam naa moom jotum waxtaan a jotuma leetar waaye nag ma xam ni la tukki bi demee rek la ko ma ne ko yow tum ne nii wala coono tukki bi yëpp jeex na daal moom li ma gis mooy bëgg nga waxal ma te waxaloo ma rek dafa toog ci lu dul dara nag man du ma kon man suba insha allah ma def boo xëyee gisoo ma def waaw ah, donte man bu ma jëlee ci tukki mm-hmm. Mm-hmm. mu ne ma haada lillahi yàlla tere. Mm-hmm. an uxlifaka may la woon. tere may la woon. aw uxaalifaka may wuuteeg yow. wala nga dogu ci ñu may la téye. yëpp lenn du ci am. wa maa arjatu yéexeewuma. an uhaddisaka ba ma waxtaana lan la. illaa li ulabbisaka ndare ngir naa léegi dajee nañ mm-hmm. ma seetlu coono yi nga toll mm-hmm. ak tolof tolof yi nga toll mm-hmm. ma yërëm la ci loolu bëgg laa téye ba nga noppalu loolu moo tax nangu ma doon a jox téere bi ndax su ma la bëgg a téye il faut ma lu ma lay yéexe gi lu rekk la waaw man du mu mm-hmm. nga dogu ci demit ma ne doo dem di wuuteeg yow mm-hmm. loolu du ko def mm-hmm. waaye ni mu demee la rek ah gis naa la nga sonn torop nekk ci ay tolof yu doy waar ma yërëm la torop bëgg la téye ba nga noppalu te nag pour ma téyeel dafa am lu may dëgg rek loolu moo taxoon ma yéex laa wax leetar bi loolu la nite na de waaw nite na boobu loolu baax waaw nite na de waaw wama ardiatu yéexewuma an uhaddisaka wa ma waxtaan mm. ak Allah illaa li ulabbisaka dara ngir naa la sàlloo rek gis nga ko bu baax a waaw gis nga ko bu baax a waaw waa am benn naan ma leen kurbaan mm.

waaye dit bu ma fa nekk nag. loolu woon na benn benn téere benn téere woon na. waaw loolu téere keroog maa ngi si naan saw ki ma dugg si waat mu may man ma góor gi daf mu wax mu ne fa la jël xam ne da ngaa sonn jëm la fi téye woon doo bëggoon nga noppal moo tax nangu da wax nangu la wax benn téere. Mm-hmm. waaw man ma góor gi mu ne ma mu ne ma. xam ne da nga sonn. bëgg nga noppalu moo tax joxul la waaw. fekk na it man maa ko waxoon ne ko nag man dama sonn nag. temps yi moom dama sonn dama fi ànd fa loolu laa ko waxoon it nag. te boo wéy ku ma gis dina ko xam. waaw nag dama sonn jamono bi xam nga nag bu lay xam. waaw maa ko waxoon it wax dëgg yàlla. xam nga góor gi man la gisee rek la xam li nga wax. ma bëggoon na noppalu moo tax mu téye lu ma seren. moo ko wax mu ne la dama xam tolof tolof yi nga toll mm-hmm. te am na foo xam ne foo tolloo mm-hmm. il faut ñu dimbale ko mm-hmm. ba mën a de la baxaati nga de topp la fi di xarang xarang ah lu ne mën na la fi fekk ma bëgg laa téye ba nga noppalu te nag fokk si nag dafa am lu may layee man laa téye lii képp de moo taxoon waxaluma la leexal dégg way saa kunta boo nekkee xaddi sarabta di sikk biedati ci sama daal waaxraaka te xiir la zannu soo yi njottu lu ñaaw bi mu baadati ci sori soriyaa dég ma su fekkee ni ma la digoon nag nga sarafet ci man njott dafa tax nga def koy gëm kon déglu faa sax na nga xerewlu li xasasi sirati ci njàngatal sama siira mooy sama doxin mm-hmm. li xasati siirati ci njàngatal sama siira mooy mm-hmm. al mumtadda hudaa ji tàllalu mm-hmm. waadifa te nga wéet faraji baada sidda sidda téere la bu ràññee koo ràññeeku waaye nag yu mel noonu moo nekk waadifa faraji jëm ci xibaar yër yër mhm. banda siddati ci gannaaw kattan mhm. léegi bu fekkee ne yow sa njort moo bëgg a ñaaw mhm. nga gis ne daal man dama la tardeel ci lu dul dara li ma la digoon danaa ko def déglu xaati ne fa qultu wax la woo ñaal ko xaati andi waxal ma fa maa lu màgg at wala guddal na mu te yàlla ka say buum waaw wala te mu tiitloo mhm. yàlla ka ngay pexe mhm. dëgg-dëgg loo jaaxal nit daal da ko man te itam daal yow fa ngay lonkee da ko sori lool mhm. xam nga man mii suma xel ak bu fi wax da ngay lonkee da ko sori lool comme àllo lu màgg at wala guddal na mu te yàlla ka sëy bu waaw te tiitloo te man ti te te tiitloo te tiitalloo yàlla ka say pexe fa qaala mu ne ma mu ne ma in alam xamal ne am na dara naka jamono ala buusa bay ñëkkalal ko alqaani sànni woon ma ila tuusa jëm tuus waana taman yow itin ca boobale faqiirun ko ñàkkala waqiirun ko diis ak bon la tollu ndigante moo ma tuus ma ñëw fi yore moo fi dara maanaam bor yu bëri la. laa fëtti la del kenn fëtti. wala na xëy bu jaagee na xëy. loolu dara. faal jaani loru looma. Mm-hmm. sabarul yadayni féex ak ñaari loxo. Mm-hmm. ila tatawuqi jëm ci ndombo xoo mooy gàcce xoo. bi dee mm-hmm. di ci baax. man yoruma dara. te soxla yaa ngi fi. ma gis ne xalaat bi góor daal. Mm-hmm. mooy leb te bàyyi xel bu amee fay. Mm-hmm. mais si góor ba te ñaar. Mm-hmm. ma ne kon damay leb. ma ne kon damay leb. fa dantu ma dalde leb. li sooy ittifaaqi ngir ñaaw ak dëppoo. même man ci ko xam ne woo moom. afirul axlaaq ay jëfeñ ci jikko la. waaye xam nga yàlla bu mooy nattoo nii rek boo naree ñàkk sens. man ba ma soxlaa te sama xel daj. Mm-hmm. mu am lu ma lebal. Mm-hmm. ndege nit ku jëfee ni mu xamul. Mm-hmm. borom jikko yu ñaaw la. leb naa ko lebal naa. wa tawahamtu ma demlewu. te sanni yenn nafaaq yombal xëwu. ma yaakaar ne buntu dana gaaw a feeñ. fa tawasaxtu ma yaatal fi leen fàq di dundale. tax liñ ma lebal itam. jëfandikoo ma ci sakkanal. jëfandikoo ma ci benn yaxanal. fa maa abaxtu tiqiwuma. Mm-hmm. hatta ba nga ba lu may diisal na ma. day mm-hmm. doon bor bu xam ne ni war na ma. Mm-hmm. xaqu koo xaqam. wala zama ni te taxoo man. mu tey koo aji xëy waxam. yëguma rek. ñu tàllal ma këyit. boo xam ne xaalis ju bëree bëree la. ne yaa ko fi fay ko. waaye ma gërëm. fi am rek gisuma gërëm. jaxle dikkal ma hmm. waat na tu ma xamal hmm. mi aji lebal sama hmm. sama ñàkk ma ne ba ah, dut bañ a fay de waaye la ma gaaroon ba ma de leb te mooy ñàkk dama gubi de waat na tu ma xamal mi aji lebal sama sama ñàkk su ma jëfin mooy sama ñàkk falam yu sa def dëggalul imlaaqi sama ñàkk mu ne affaire yéen affaire tria a def rek bu nit ñi liggéey du ngeen liggéey bu ngeen ñëwee defee pexe di lekk àll jàmm yi fi tria yi sama ma affaire tria la mhm. a yoruma dara yoruma dara heure bu nekk ngay dangay dugg bu rafet heure bu nekk dangay sol yére yu rafet dangay lekk lu bu yoruma dara affaire tria yooyu mooy la mhm. loolu la wala ta saa génnul xan mm-hmm. irhaaqi ci sama diisal mm-hmm. bi bu tax rek mu àgg sama mm-hmm. man sama affaire demeewul noonu de loolu ma bi bu set sama mu ne man sama affaire demeewul noonu de man sama alal duñ ko resal ci caaxaan wala ta saa su mooy bàyyi xan irhaaqi ci sama diisal ban li fi nekk jadda nuur na fi taqaadi ci fayam dama topp rek fay ma dañuy dem ba ca kanam ak kanam tuuti rek. Mm-hmm. wala jëmu nuur. Mm-hmm. fi xiyaadi ci sama xomat. Mm-hmm. ilal xaadi jëm ci xaadi yi. da may fay. mënuloo ko ma yóbbu la ci yoon. lan nga nekk fii yóbbu bi ma xam benn. mu ne loolu lay wax hmm. wala jëtte mu nuur fi fi xiyaadi yi ci sama xamat el xaadi yam ci xaadi ji hmm. wa kullama xadaatu waxtu wu ma toroxlu le la wa ñaal ko fil kalaami wax watanzaltu tema sàkko wàcce minhu ci moom rifqal kiram ndànkug way tedd yi waraxabtuwoo te ma xemem loo ko bi ay yantura bu mu xoolat lii ñaal ma bi mu yaasuratin ci yomb aw yon aw yuntirani wala mu yéexee ma ilaa maysuratin ba ci koom saa su ma waxee moom ci yar ak teggiin na ko sëriñ bi ah dafa ndànk rek dafa ndànk rek jëfandikoo yërmande rek Hmm. la nga daal tiyaaba ji nga waroon xamee ci lebal. Hmm. bu ko yàq. Hmm. dafa déggoon yërmande rek. ñi loo xam ne jëflante mën na kaa yombee. muñal ma ba ma am mu tàng tàng du ma la jox lu ma amut. saa su ko waxee loolu rek. wa kullama xadantu. bépp bu ma toroxlulee la ko ñaar ko fil kalaami ji wax. saa su ma ko waxee waxi teggiin. ne ko xam naa ne maa amee say yëf. ba ñu ma lay fay mm-hmm. watan santu te ma dak koo wàcce mm-hmm. min wut ma rib xal kiraami ndaan ku way tedd yi mm-hmm. dama bëgg nga ànd sa xel dama bëgg lu rafet li nga tàmbali bu ko war a xabtuwoo ma xemem loo ko faa ci bu mu xoolal lii ñaan bi mu yaasaratin ci yomb xemem loo daal ci yërmande aw yoon dara nii mu muñal ma ilaa may suratin ba jamonoy koom saa su ma ko waxee lool. Mm-hmm. maa bul xamee fil insaar ci yéex yi mm-hmm. wax ci nu daar ak jago wu ñu wër si àlla. Mm-hmm. ci sama yër naa muñal ma muñal fan. waaw loolu la tëdd ci sama yër naa muñal. muñal fan. fa ba xàq nga giñ naa ci sa xàq. maatara din ngay gis. masalikal xalaat soobu aw turu yéen lu may nga wan ma. sabaayikal xalaat yi mm-hmm. lu ñu toggi wul fu sell daggitu wul fu sell mm-hmm. wala nga lu ñu toggi wul fu sell daggitu wul mm-hmm. dalay may jàmm ci man daal muy lii daa fi jëlee mu ngi wax yi waxi kese man dama sa xëy man ma bul xamee bi ngay daat ci muñandiku bu lay xaar pour la wax di jani lu dara ak jabo wuru du sell hmm. ci sama yow naan xaar ba kay hmm. waaqi giñ naa ci saar hmm. matara din ngay gis masalikal xalaas suub waaye mucc yoonu aw tur yéen yi na rek nga wan ma sabaykal xalaas yi dogitu wuru du sell lii laa fi jëlee woon mu ngi daal moo la may jàmm ci man ak wasee na xam dafa am looy xaar. ku bañ ko la nax. dafa am looy xaar. mu fekk ko canam nag. wala maar aytu ba ma gisee. itidaada la da di tata xulóoxam. waan ak naka luy mbir. laa manaasa de rëcc waaye di dama ñaal. min yadihi ci loxoom. saaxabtuhoo jiqiyante naa ak moom hay. su ma waasabtoo topp ma tëbante moom mooy ma xeex ak moom. li yorafi ani ngir na ma kalaame illa walil jarayimi jëm ci walil jarayim mooy kii rek la tooñange yi laa duma kalaame ila xaadi jëm ci aji hàtte fil mazalimi ci tooñange yi mooy xalali jàmbur mu ne dëkk bi ñaari xaadi ñoo fi nekk kenn ki mbiru histoire lañ ko yët kenn ki mbiru alal lañ ko te alal laa ko xameel te dogu na ci kalaame ma mm-hmm. bi loolu pexe mm-hmm. benn bis mu dikk rek ma gën koo xamadi ko maa tey yow yaa soob mm-hmm. ay xaa du xaala rek xaa yaa fi mujj am am na jamono mën naa lay jant li ngay tiitaroo nii def di dara bala lëg nga deema ko fi mbaa nga ñàkk yooyu laa ko ne man ngay wax yow wax rek ñu songoo xeex na loolu la jaar man ngay wax yow laa lay wax rek ñu songoo ñu xeex mu ne pour lan fi ne buñ ne xeex nañ xeex nañ rek la ñuy wax ba ñu yóbbu cawar xeex boobu hmm. la maa yóbbu te comme moo gën a neex a jëflante hmm. waaye su fekkee xeexuñ nag ba ñu yóbbu cawar bas ba la maa yóbbu te kooku dafa soxla ma hmm. doon pexe la <laughs> dafa ñëw benn bi rek ma ne ko man fayu ma la xaw ma yow soog nga torop waaye yaa fi mujj am xam nga jabaram mën naa laa jënd yàgg li nga am. ëllëg hmm. gi ci biir bi mu mujj nii ngay jëm da ngaa dee rek. Hmm. bàyyi ko wala nga toog doo amati dara. Hmm. ngay tiitaroo nii du dara. yow soog nga torop. dafa la jox lu ma amul. yow laa ko man ngay wax yow laa de wax rek ñu soog ko. <laughs> yow laa jaar rek. mu ne saaxatoo jeexaate naa ak moom xay. dama ko njëkk ci sëral ma nga rek gën koo ñàng rek lim bañ a dégg yëpp ma àggee ko ko. su ma wax dëgg topp ma tëbanteeg moom ñu songoo xeex man ngay wax yow lay wax lu tax nga ma rek. Mm-hmm. bu ma ko waxaat rek ma jaaraat ci rek ñu songoo. <laughs> li yoroon naa di gën a ma kalaame pour na ma mën a rek. Mm-hmm. ila wali jara imi jëm ci kii xaate tooñaange yi. Mm-hmm. laa du ma xaate ilal du ma kalaame. haakimi jëm ci kii xaate fil mazalimi ci mazalimi mooy bor li maa ngir li nga xam ne balaxa nii jot na ma min ifdalil waali ci baax ak waali ji ba fadli yi ak ngëneelam mm-hmm. wa tasaddudil ak tasat xaab yi ji ba buxli ak nayam mm-hmm. ndax dañ wax ne ki ñuy faral di histoire daal mm-hmm. ku bëri yërmande ku baax la ku tam la waaye ki ñuy faral di mbiri bor daal kooku daal ku compliqué la ku jafe la day da man da génne dara jox ko nit mu ne fala maa xadar naa ba ñu teewalee baaba amiri tuus ak bunta dëkku buuru tuus bi ah aras yëg naa ne am na la baasa dee sagal wala muusa du jàggeen weñ bañ àggee ca maxkama ba ci buntu buuri mu ne ah nag dama def mu pexe baax na baax na boobu. Mm-hmm. Ah, ba xeex. Mm-hmm. xeex la ñu fa ñu yóbbu xeex. Mm-hmm. wala ba foofu la ñuy yóbbu suñ tool yi. waaye bu ñu ko ñu alal. su ko tuur nag mu ngi ko la ñuy wax. te kon fa ñu yóbbu alal la ma yóbbu. te nag fële moo gën a neexal li jëndee bi. man waaye dama bëggoon ku ma dimbale ci benn mootu hmm. ak benn taxa hmm. dafa am lu ma a bind hmm. loolu mu ne fastanaytu masab ma daal di sàkku lu di tegu dawaatam dawaatam daxa mu wax ne nañ ma xabal daxa wa ak këyit gu weex man mm. damay bëggoon benn maso këyit mm. ak benn daa mm. waanseetu maso risalatan leetar rakkataa bu daa piti pante ma di indi benn leetar boo xam ne dama naa risalatun rakkataa la ndax ñaari xaraf yoo dendale dayro buñ tomb ak bu ñu tomb mm-hmm. Hmm. wahiya moom risaala bi nag hmm. mooy axlaaqu sayidina tuhabbu ba leetar bi àll axlaaqu sayidina jikkoy suñu sang bii di amiru toosa hmm. tuhabbu dem na moom ñëpp ko sopp ndax jikkoom rek wa bi aquwati yi ci dingiréew yu la boole dee sax karam këram ñëpp fay dem ndax njëriñal la wa qurbu woo jege ñam hmm. tuhabun ay may la hmm. jege hanteeg moom daanaka tedanga la hmm. wana yu woo sorim téléphone la sore hanteeg moom xaw nay doon ndaw wa xullatu xaritoo am te boo xaritoog moom nasabun kem askan la soo xaritoog moom dangaa mel ni sa mbokk la wa qatihaatu woo dogum nasabun coono la soo ko bëgg dogu Hmm. yaa de wéet ci àddina si hmm. waxar bu woo ñawkat làmmeñam hmm. mooy fasaxam daliqoon aji ñaw la ku xam wala waxar bu woo ñawkat jaasim daliqoon aji ñaw la wala waxar bu woo ñawkat làmmeñam daliqoon aji ñaw la jàmbaar la ku xam fasaxatu lisaani la wasuub bu woo ay jumam te daliqo danañu melxat foo janoog moom rek li ngay gis mooy cëlmaay lu tàlli wasala ku pegum saana rafetal na ko hmm. gore gim gore hmm. bañ di dugg ci yenn masakil yi hmm. duggin wu ñaaw tax na ñëpp ko naw ñëpp fu ne la rafet wa qawim na ji yi aji jubi yoonam baana bir na yoon wu jub wi mu tegee leer na ñëpp ku ko xam rek xamee nga ko loolu wadiinu woo xelam xallaba jàllar bina mbir yi hmm. wa jarraba te mu nattu mbir yi hmm. borom xel mu xeew hmm. mu ñor la wa naatu meloom sarraxa joti na sarx wa xarraba te mu joti xarbu salaw turóom rafet xàgg na ci aqsa masariqil ardi wa maxaribiha sayyidun qullabun sabuqun mubirrun fatinun muuribun asuufun ayuufu muxlifun mutlifun axarru faridun naabihun fadilun zakiyun anuufu mufliqun in abaana sabbun isa naaba hiyaajun wa jalla xatbun maxoofu mu ne sayidun sangala de moom ami moom sayiduna amiru toosa bi sangala de xullabun kay jàll bi ha bi ha kay jàll bi ko ha koon saboqun jiituhaa koon la koo jiitu nit ñi la mm-hmm. mu birrun koo not ci mbaax la koo mm-hmm. man ñépp ci mbaax la mm-hmm. batinun ko xelu la ku mën a xam la muxribun aji dikkee tumaranke la ay mbaaxam yem na nit ñi asuufun ku bañ mbir yu suufe yi la ayoofun ku sib ku sib mbir yu suufe yi la muxlifun aji wuutal la lu way ñàkk mm-hmm. lépp loo ñàkk ci sa xalal sàlla mm-hmm. booy mu wuutalal la ko mm-hmm. mutlifun aji sànk la xalalam soo amee xalalam nag jox ñi axarru aji rafet la fariidun kenn la naabihun ku yëkkate daraja la fadilun borom ngëneel la zakiyun ku ñaw la anoofun ku jom la muflixun aji dikkee kéemaan la in abaana bu birale tabbun aji garbal la hmm. isa naaba su bañalee mooy su mattee hmm. xiyaajun xew-xewu jamono hmm. wajalla te mag xatbun ba mbare mooy mbir mu diis ma xoofun ma de mu ñu ragal xetli la manaw bi mu sarafihi nosu waay tedd nga moom amiru tuusa te talifu dana ñu dajee salaw yi nga xam ne moo ko may soraf yépp a yem wasu boobu hibaa ihi tawab mayam yëkki bu dana mu wàcc mm-hmm. heure bu nekk itam ay mayam mm-hmm. mu ngi ci nit mm-hmm. wa naa ilu ya day hi mayeeg ñaari loxoom faada ba bënamu xamut fu njëriñam xabbul wa wa wa wa suufu xalbi yi ñawa xolam naya na mu nay takk ca xolam wa suufu xalbi xalbi yi naya xolam xaada ñiis na wa xilfu saxa wa xilfu saxa iyi mhm. xenaatab tabam mhm. yuxtalabu dem na farat mhm. wa zahabu ayaabihi wurusu ay waxandem wurusu koppar foram yuxtarabu dem na ko rékki lu ma am rek jox ko nit man la fa ku tàpp na bu lépp foo ci tàpp waayam mooy wàllu waayam wàll wàllam falaje mu tuufu waxalaba te mu wa taajiru baabihi aji yaxantoo taxaw ci buntam mm. talaw jala ba bijj na mm. soo ci buntam mm. ndég soxla soxla ba faju na ba te mu wuruj mooy mu jël kappa fegu na moom sayiduna an hat me bari yin walis tooñ koo dañ tuuma yow nag koo defu dara doo ko de wa bari set na it nag mm. min dana fi xawiyin mm. ci tilimoom aji réer mm. kilifa gu ñorade di jëfandikoo doole seetul la mooy def kooka dee tilimam ba yow set nga ca de aw wa wa bari a set na min dana fi xawiyin ci tilimoom aji réer wa xaral na lënkale na liyaanu woo nooyam benn ci tedd nga dafa jàppandi te taxu koo yemu wanaka wa jengana xam masabi kësin walit masabu ku moom daal ku moom ñàkk njëriñ ci man da bokk yow yoon laysa bi wasaabin du tabakoon henda nun ti sorrin fa tabbi kay walla fa manga kay xew xew dikk rek mu jëfandikoo doole def rabax rabax du ku koy de bal li fi nekk ya xefu dana mu fegu mm-hmm. xefata barrin fegu aji baax mm-hmm. moom dafay xam ne rafetal rek mooy wàlla mm-hmm. falisa yuhabbu wa yustahaqu afafuhu saafan bihi fa lubaabuhu xallaabu axlaaquhu xurrun tarifu tarifu wa fooquhu fooqun isaa naadaltahu xallaabu sujuhun yahissu wasu talaafin inhafa xillun falaysa bi haqqihi yurtaabu laa baaxilun bal baadilun xirqun isa yuxtarru barasun laa yalihi baabu mu ne falisa ngir lii yu habbu la dee fi ko sopp wayu te dee fi dëggal afaa foo fegum li ata nañ ko fegu gore saxaafan dana ma sopp sopp bii ñoom kii maa ko bëgg fa mm-hmm. lu baaboo aji sellam xalaa mm-hmm. bun wurujaakoon la te xam dëgg-dëggam mm-hmm. fokk sere dag ko bëgg axlaaqoo ay jikkoom xurrun way rafet lañ tarippu danañu mel xat wa fooqoo cet bala fettam fooqun cetal bal la bala fett la fett la xalaa bun gaynotaakoon isaa naa dal tëwoo ba bëgg a fettalante moom ba foo ko foo xam mooy catal fettal jamee kaayam fooqun fooq la xallaabun bay na taakoon isaa naa dal tëwoo ba bëgg a fettante moom su jihun ku yomb mbir la nit ku jàppandi la yéen su dafay tàllal xar kanamam waxtu wu nekk wa su talafin borom dabatal la inhaba bu tarxeesee xillun xarit hmm. su ngeen xaritoo hmm. yow nga juum hmm. moo lay defaral njuumte la ba mel ni defoo dara falay si yu saabu défu sikk bi xàq yi ci xàqam kenn sikkul kii jar na lu ne la baatiloon dut koo nay de bal li fi nekk baatiloon aji joxe la lépp lu mu xirqun ku tabe la itam mm-hmm. isa yon tër waxtu waa na ko xaar barzun aji génn la mm-hmm. te itam buñ ko day génn laye lii ku tabe la isa yon tër waxtu waa na ko xaar mm-hmm. barzun aji génn la laye lii du ko méng baa bun aslun bambare hmm. mooy mbir mu diis li dañ ko waroon jàngale démb dama ko diisutoon hmm. fan la mu dagg hmm. xarma xedaa di ñëw kaag mattam mattam bi mën a bii ci bañam fan xatta dal di dañ ne jëloon naa bun bañ fan xatta di dañ mu ne jëloon naa bun bañ mooy koo xam ne bu la jamono moom mooy matt suqali la donte bañam mooy xerotee bu dara dalee nit hmm. mooy taxaw xettali ko hmm. donte muy mujj coono hmm. donte donte la sax moom dara ko cee demee ginnaaw da bu màttee as lun ba mbëri walla mu dagg xarbañam daal di ñëw kak matt mattam bi mu ne bi ci bañam fanaat te si peeg mu ne dem naa bu bañ wajadirul weyla demoon ci koo xam ne labba xelu na hmm. wa fatana te mu xelu hmm. wa qaruba ak képp ku jege hmm. wa satana ak képp ku sori ci ku ne an asana ba mu toroxlu la li xariyaay samanin ñaar sangab jamono wa jaabiri saminin te daal aji wéré kile tey mooy borom jamono mm-hmm. mooy faj xopp yi mm-hmm. ñëpp ko a nangu leen ah mm-hmm. wajadiru lu xëy la ci képp koo xam ne labba xelu na wa fàttana te mu xelu te waqaru ba ak képp ku jege yi wasatana ak képp ku sori an adana bu mu toroxlu lat le xariyaay zamani ñaar sangab jamono wajabiri zamani saminin te laaj ji mu tara bi waxtu wam naam fee kadi libani weenu aw ay sow mm-hmm. xussa la jagaleef mm-hmm. bi ifadati satani mm-hmm. ci bëbbal mayam gudaaji dotte ba mu xammee foofa tey jëriñale muy mbiram naa sa yëkkati na de yàgg nay suqali de ko faraja yëral na de yàgg naa xettali wada fara yàgg naa dimbalante de faal xaja mu béggo wana far yàgg nay damu ante faas na jëm mu tillu lottu loo kam noon damu ante ba faate mu dellu mais xaqin ci dëgg ab la juraaju rafet ku mos a ante moo lay gañe te la may wax yëpp dëgg lay aat na ko sonnal na de man ñi nga xam ne sa yéeli xeet nañ koy ming xam nga ki ma yërëm mooy ki ko bëgg wutu ëllëg ku la yërëm mm-hmm. adam ba sonnal na man ñi nga ne sa yéli xees nañ koy méng mm-hmm. wa qurrita ta gees na ko mm-hmm. il hus sa bëgg sa meesee ko wa buliya dana tox fuutewul ak buñ jëlee ci moom dara bu mu lay gën a man yëfi nguuram wa tawwaja ndëppaleena mooy rafetaleena sifaatihi ay meloom bi xubbi ofaati ci sopp ay way xaaram nit la koo xam ne képp képp kuy xaaram daf lay yaatal képp kuy garam daf lay yaatal wa tawaje rafetale ndëppalee na sifaati ay meloom bi xubbi ofaati ofaati ci sopp way xaaram fala xalaata ba jetin yamtaddu dillu xis bihi fa innahu barrun biman anasa dawa suhbihi zana masaya warfihi bi lubsi xawfi rabbihi falaaqa la yàlla bu mu dañ moom abiru tuusa sayiduna saba jëtin de borom taar yam tëddu di tàllalu adillu xisbihi kerag natango fa innahu naka moom barun koo baax la bi man ci ko xam ne ana si mu dawasu bi leer ay jumam mm-hmm. saana rafetalee na mu mm-hmm. masaya barbihi ngëneeli ñawam mm-hmm. bi lub si xaw bi rabbihi ci xool doo ragal borom bim nitee daf di ko ragal yàlla moo tax niteem bi dafa ci dara lu ñaw saana rafetalee na masaya barbihi may yañum ak ñawam la bi lu si xaw bi rabbi sang faw soo texe am bi ma fàqire ci ay ndam ta asalat yooyu cosaanu nañu wa jallat te ñu mag ay ndam yu cosaanu te rek la am wa fawtuhu ak jiitu mooy raw gum ñu bari be sanaayaa ci ay njekk tammat yooyu mat nañu wana mat te ñu tasaare mbiram yi siiwal mbaax wa yulaayimu dana askanantoor hmm. qurba hadratihi jege péyam hmm. awsu wiqihi xettali jaamam hmm. bi hadrin ci cër min wati ci xejam moom nag yaakaar naa ku ko jege daal te doxoo lu may jaamam dana am lum la xejalee loo xam ne yow dañ ci xettale ko mm-hmm. borom leetar bi la yaakaar naa ci moom loolu bu yu la mm-hmm. imu haskananto mm-hmm. qurba hadratihi jege peyu sayidina lu haskananto mu xaw riqihi xettale jaamam bi ko leetar ni bi habdin ci cër min hurwatihi ci xeejam fa innahu naka moom gan gii dikk te lii du nat bin doomi sanga ci ñoo baax la bokk wasari du jat bin ku ñu dàqi bee ko war la mm-hmm. jagadi mm-hmm. moo bëri lu muy waral mm-hmm. moo ko jëlee fa mu dëkk de wa jëreefu te ku ñu jami xew-xewi jamono la te dafa am ay mbir yu ko dal yu dis te tegaloo asarat yuy jeexital ne wa nasimu xalaida taa ji nas ay ràngalay te say yarat yooyu dox nañu te katib mahir la mhm. shaayir mubliq la xatib mhm. baliix la mhm. koo xam ay maqamaatam a ah, da in jaasa bu fuuree li xutbatin ngir xutba falaa yoo jëdu deefu fekk qailun aji wax wa summa xusun topp xusum nu sane data foofale samma ca foofa baqilun kem baqil li bind lettre bi eh, jàmbaar mën naa xutba dégg fay wayin habara mm-hmm. wala fayin habara ah ah, ah? ne ni en fo bon mm-hmm. a ah, baan inchallah allamana allahu ba tey moom Abu Zaydin ak amiru Tuusa ci leetaram bi ci lay wéy mm-hmm. mu doon wax moom mi bind leetar bi ni mu ne fayin xabara bu ngémméñalee mm-hmm. mooy bu génnee wax mm-hmm. ba taaral ko xulta mm-hmm. nga wax ne lii day xibarun ay malaane ngémméñal lañ num ni mat yooyu booyaa def na leen waxilta waxilta woo te nga jottu ko walla waxilta nga jottu lim def riyaadan muy tooli dër mm-hmm. at namat yooyu fo yooyu yooyu màgg ta te jot lam def mm-hmm. riyaadan muy tooli dër mm-hmm. at namat yooyu màgg nañ ki la dikkal de yi melooy nga ni lii mu ngi ci moom haada li mbir maa ngi nii summa topp sir bu woo naanam de ah bar dun tepp tepp la moom nag ko loru la dal doyu waxootoo dundam mm-hmm. xar dund lépp la li mm-hmm. ma dund lépp daal da ko def wa falaqoo subaam mm-hmm. xasaqon kem ngoon la xam nga jant bi bu soyee duñ dugg di dara mu koy xamu noo dafa am dara wajin baabu woo jàllabem koddayem xalaqoo naa jarab waqat xaliqa jàq naa nag tey li taw xuri xari min ngir tàkk ak mer ak aji lebal xaasi mm-hmm. min ku daaji jiqi ay mm-hmm. dafa am ko xamee alalam mm-hmm. te kooku du nitu jàmm kooku nag mooy yëngal yëngatam lu daal lu ko jaaxal waxat taliqa xuri xari min ngir tàkk ak mer ak aji leble xaasi min ku daaji jiqi ay yastahissuhu kooku dana ko sàkk. dana ko sàkku dana ko kii dana ko sàkku. bi xaqin ci xaq la si min ju ba. te moo ko amee bor. li koy fayal ko moo ko lebal. fayin man nag bu xiwlee. sayiduna sang suñu. bi këf yi ci fegee xam. bi xibaati këf yi. ci mayi teen xam. tawasaa mu gaña yow. lu mel ni ci tedd nga. wax bu ko wér. su fekkee dimbali na moom Sayyiduna ba fay ba fayal ma a boobu mm-hmm. eh, kon di jar su muy sarax dawa mm-hmm. su ko tool di am mm-hmm. fa in man na bu xewlee Sayyiduna bi këpp yi ci fegee kooku bi baati këpp yi ci mayi tenkam kon tawa saha mu gañaa yoo bi ma ci tedd nga baa ko bub wera wa baa te mu dellu mm. bi ajri fakki ci mm. yoola sama xob bi mm. min wasaqin ci xew ci jéng mm-hmm. te itam dafay am te yaboy mm-hmm. ku jéngi kuñ jéngoon mm-hmm. laa xalaat yàlla bu dëñ sajaya xuluqi ay bindre jikkoom ay jikkoom tax du de xonta saa ima barqi amiru buur bi mhm. laa bee haa wuru si leetar bi mhm. ba buur bi mu settantalee leetar bi mhm. wala ma tasafa ba settantalee al amiru buur bi laa bee haa bi wala ma xatte mu gendee ko a sirra mboot almoodaa ma dem ñu dénk fi haa ci moom mu settantal maana yi aw xasal la digle fi haali ci waxtu woo wala rek bi qadaa yi day ne ci boo mhm. xamee boor bi mu toll bay na xas mi diggante aji xoloo sama woo bay naa sama ma waaji na yore woon ñu mhm. mhm. la sani topp mu jagooma li mu kaasarati ngir bari lanti am ma daal dama téyel boppam ndax xëy daal mu wane ku man mm-hmm. ci booy dajee koo xam ne nawleem la ak mm-hmm. dana ko neex mm-hmm. waxtasa nii mu jagalee ma bi asarati yi ci xëfalam benn naa lu ma may loo ne may bu ñu bëri fa labistu masax binaa si ni na loo mat ay at anaamu de xawu bi diyaafati yi ci ngana leem waar taxaw te may sàmm. Mm-hmm. firi bi rafet yi ci naataan muy yërmande. Mm-hmm. lu mat ay xat. muy mm-hmm. ma taral. waaw ah, may tedd bu baax. ci teraangaam. xataa yi daa xamarat ni ba ma muuree nag. mu waxi ay mayam ba nga xam ne mayam yi nag muur nañu bëri nañ lool. xataa yi daa xamarat ni ba ma ba mawaahibu ay mayam ba ma joxe ba ma jàpp ne fi ne moom waratuma ñàkk de hmm. waataala te guddal day nii sama lafi saabu wurusam hmm. xam ne lim ma jox daal hmm. tax na fi ne yu bari daal war naa koo man su ma ko bëggee bi loolu amee talataltu dama yolleeku bu dee te ali ji laxas dama yolleeku bëggatuma fee toog te mënuma ko tàggu alama ànd ak li nga xam ne tara yaa ngi koy min husni laal ci rafet ak xel hmm. mooy melokaan bi muy gisee nii hmm. qaala xaaris nee na hmm. fa qultu ma wax la wu ñaal abu seydin ma ne ko abu seydin sukran dana ma sant ak li ma ñaal buur bi nga xam ne ataha dogal na mu lakka ñaal la luqiyaana safhi dajeeg aji tab mm-hmm. alkarimi ku la aji tedd mm-hmm. waan xadaka te mu xett leela mm-hmm. bii ci ko tabe ku tedd kooku min doxtalil xarimi ci najeg aji lebal ñu sant yàlla mi la ku baax nga xamee xett leku sa tànc gañ la doon tànc waaw subran daal ma sant ak sant dama ñaal buur bi nga xam ne ataxa dogal na mu la ka la bu xiyaanu saf bu dajeeg aji ta aji tabe alkarim ku da aji tedd wa an qadaka te mu xett leela bii ci asambul karim min mm. doxtatin garim te mm. na jeg aji lem mm. fa qaala mu ne alhamdulillah ala saadati jaddi wal xuluusi min alxasmi al alam alhamdu mbooleem cert lillah ji sax la ñaar sama borom ala saadati jaddi ci texeeg muut xuloo si ak mucc mm-hmm. mais al xas mi caaji xuloo mm-hmm. alal di ko daaji tan joxol summa qaala topp mu ne ma mm-hmm. ayuma ahabu lu gën a topp ilayka jëm ci yow an udiyaka ma may la mi nen xataa it ci may gi am udifaka walla ma jox la bi risalati ci leetar a raqataa bu daaji fi di fànn mu ne bu la neexee ah ma xem la jox la yóbbal boo nga ñibbi mm-hmm. te nga ba fi leetar bi mm-hmm. wala boobu ma jox la leetar bi mm-hmm. suba sa yóbbu xam-xam ah ba fi xam-xam nga def ci nga def loolu la ko loolu moo gën a sopp eleye jëm ci man man nga xëy na ba ñu may di leen de waaye lekk bi mu ne ma hmm. woo moom fi de leetar bi sax de yi hmm. waxte ga gis naa ci saaq hmm. axafu moo gën a woyof alayhi ci man man mi ngi ci sax de ah waxal la leetar bi de mu daa de moo gën moo moo gën a yomb ci man de dara jox dara fa inna neex la tama naka maye loo xam ne yële ju dana mu tàbbi fil asaani ci nopp yi hmm. awan mu gën a yomb min nax la tima ci maye loo xam ne yax lu ju dafay génn hmm. nel ardaani tukkee ci loxoy mu bii booli hmm. maye loo xam ne fay dugg ci nopp ka ngoma yi nga yore ko mu gën a yomb maye loo xam ne day génne ci sa fex ci ka ngoy may yow nga jàkk ko mel na kañ daa daa tabe ci xam-xam daal moo gën a yomb ji tabe ci am xam mm-hmm. fa inna neex la tama topp maye loo xam naka loo xam ne mm-hmm. yële ju dana mu taabi filaataani ci noppi mm-hmm. awan ah, moo gën a yomb min neex la tima ci maye loo xam ne yaxu ju dana mu génn mel ardan tukkee ji loxo yi fekk na it nag nit léeg-léeg seen diggante dafay demee noo xam ne hmm. lu ci xamul de hmm. ndax yàlla dogaloo hmm. waaye lu ci xajul moom ko wax affaire la mu baax wax ci xolam bi waxtaxyaa te mu xaw a am kersa ci wax ji daal fa jamaa mu boole li ñaal ma bay na risalati ci diggante leetar bi wala fi ak may mu ne jox na ma leetar ba jox na ma yóbbal itam fa bustu ma texee min wu ci moom di sa may ni ci ñaari cër mu ne muy saa sol ma am ñaari cër mooy leetar bi ci xam-xam bi ak yóbbal bi ci teraange fa fasaltu ma facce xanu ci moom da nga naan saret ngeen waaye fa fasaltu ma facce xanu ci moom joxoon may ni ci ñaari mandat foofu ma dellu ila watani jëm ci sama dëkk xari naa ñu daal di sedd ci bët ci li nga xam ne xustu làq ma kontaan trop ma am min risalati laa lahum leetar bi la wal ay ni ak kaxe gi muy leetar bi ak kaxe gi dégg nga waaw waaw